Solomon, don't listen to your money. That's I'm here to do you why, regardé, documentaire BBC, barré, scandale financier, l'année. Al Sal, Macky Al eh. Sall, jox ñu Al Sall, Macky Al Sall, jox ñu suñu mané. Eh. réewum bandi doole fa yàmba ay sàngara nga sëkk góor jigéen yi liberté la ñu terrorisme élection Hazreti Mil Milyoni Mir Sabah. laajal Sanor, Yag, Yag, des na la jal jalaaloo jaale la say mbok jàll lajal ma say transhumant le wonk di dox nor nal ma Mamour Diallo sàcc du sin nawle 94 milliards la rawale assemblée doome raam woote bàtt ci ko bopp lepp lañuy ñuy le lobi ne fait pas le moine mbaki Lang, ni du def déclaration de patrimoine def justice armée rokos ci poste douane Aliou Sall gas gaz Macky Sall gas allô sale, Sall gas gaz sale, sale. You're the money, Ya ada why? I'm Kasan mi tudun buwai monatade Dokuman tegori BBC yeah. je bade Eskandal finansiye telade Alusal, magisal, alusal Jani senyumane Alusal, magisal, alusal Jani senyumane asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziyaar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaro di leen wax ni man la seen mbokk patriote sénégalais Mollah Morgun may ñëwaat di waxtaan ak yéen ci taxawaayu réew mi ci nekkinu suñu njiit yi ak ci ni dëkk bi di doxe tey nag mu nekk waxtaan bu am solo waxtaan bu fi musul am waxtaan woo xam ni day tey ngeen di dégg loo musul dégg waaye tey ngeen di gis loo musul yaakaar te am ci réew mii di senegal nit yi di dox fu ñu toll naan dëkku Baay Ñas dëkk Sëriñ Tuubaa dëkk Alaaji Maalik waaye day ña jiite wuteeg loolu ak ña ñuy wax naan ñooy boroom dëkk bi euh, te nag ñiy leeral ci mbiru Adji Sarr ak usmaan Sonko di def benn par benn di leen won ni lépp ci complot la lalu ci ay caaxaan ci ay fen ci ay kesew-kesew ojo yu ñu jot nag téye ko teg ci suñu loxo muy ay ojo yu am solo ay audio yoo xam ni du nekkoo ko mën a am du nekkoo ko mën a xam waaye tey dinañ leen indi lépp mu leer bari na xeetu waaye boo xam ni ca dëgg-dëgg ah buñ ko fi waxoon tey duñ fi jóge waaye nag ay audio yoo xam ni dañ leen di benn bennal dinañ xam ñoom ci seen bopp lan moo ciy dëgg ak lan moo ci ay fen euh, ginnaaw buñ sante yàlla julli ci yonent bi Euh, di ñaanal Cheikh Omar le professeur euh, fa mu nekk caaxaan dugal ko fa Cheikh Omar Diagne fa mu nekk caaxaan dugal ko fa ay kàccaki fen ak a pexe ñi nga xam ne ñoo ñu jiite te dina ñëw ci dossier boobu parce que yor nañ ko jot nañ ci ci nan lañ ko pexelee ci fan lañ ko fexelee ci réunion bu ñu mujjee def ci nuñ ko pexelee lépp dinañ ci ñëw insha allah parce que yor nañ document bobu non yor nañ dossier ba réunion ba fañ ko défé ci palais de justice ñan ñofa nekkon nan lañ ko fexelee ba yobbu ko euh, ci kasso ba takal ko terrorisme ci luñ ko takal terrorisme lool nak dinañ ci ñëw waaye balaa ñoo yegg fofu ah dañ leen di wax euh, comme niñ koy défé bu démé ba live bi jeexit dinañ ñëwaat allah bu leen tiit bu leen ragal dinañ ñëwaat affaire dina lèr nañ buñu démé ba nga xamni ni ña ngay waxtaan te waxtaan wa dem na ba ben instant euh ñun ci suñu bop ñu dem ba euh, ndax mbir yi dañoo bëri te ñoo perte euh, fil conducteur bi dinañ ñëwaat déglu di leen waxal di déglu di leen waxal parce que euh, dafa bari les audio yoy yëpp dajale nañ ko machallah def nañ ko ci suñu ci suñu bagage Euh, te dinañ leen ko nettali waaye tey dama leen wax li ci jaar-jaaru aji saar ndax dundam dundam moom aji saar wax naa leen ci plan yi pexe ya ñu def ca plan ya ca ña tëgg ba yegg si euh, fanaan na ay quelques jours immeuble kebe wax naa leen ne euh, mi ngi doon da dem di reer ji kër seen ministre de l'intérieur ak jabaram maanaam ci kër Antoine ñàkk jom ak soxnaam boobu di Dior Diagne jaar na fa ñaari yoon reeree fa ba mu fa jógee it ñoom ñu koy jéem a xool fan lañ ko war a yóbbu pour làq ko fa Dior Diagne jël na téléphone am woo na kii di Bougane Gueye Dany ah ne ko dafa soxla euh, urgence fu ñu dugal Adji Sarr moom Bougane Gueye Dany accepté na euh, Adji Sarr ne amul benn problème euh, bu ñëwee indil ko bu ñëwee dinaa ko abal appartement ci appartement yi nga xam ne moom fa laay loué fa la loué Mbaaco Ndiaye ak ex jëkkëram boobu sant Niass fa la ñoom Doro Gaye di dem mu leen di loué wala mu leen di abal ñooñu tam di ko abal euh, borom alal yi di dóor xam nga maanaam bu al borom alal yi dem iri benn jigéen fa la ne mënuñu ko yóbbu seen kër jabar yi ñu woo dooro dooro abal leen benn appartement ci li muy loué ci ci Bougane Gueye Dany patron boobu noonu nga xam borom doole la day buggul jabaram yëg ko tëddee foofu noonu jabaru jàmbur wala wala wala ku mu a doon. ab wala des fois am na góor jigéen tëddee ku góor wala fu mu mun a doon après ñoom ay ñoom quelque genre Doro Gaye foofu la ñuy amee weccet parce may nañ leen ay plan yu ñuy tëddee jabaru jàmbur wala jigéen wala parce que abal nañ leen ay appartement appartement yooyu nag ki ko moom moom mooy Bougane Gueye Dany léegi nag Bougane Gueye Dany bu mu bu mu accepte loolu jour bu ñuy yóbbu Adji Sarr muy dem ci kër gi nga xam ne Bougane Gueye Dany moo leen ko abal euh, Dior Diagne yan bugg euh, Adji ne ko yóbbu nañ ko yóbbu ñu indi fa ah Adji Sarr ba ñu indee Adji Sarr nag fekk ñu fa Bougane Gueye Dany caabi ba Bougane Gueye Dany wax na ni mi ngi ci gardien bi jël nañ caabi bi ci gardien bi ubbi nañ appartement bi Adji Sarr ñëw naa ak ay bagaasam wàcc na Viviane dinaa leen wax après kan mooy Viviane Viviane ñëw na ànd ak ñoom ak euh, waa dig waa dig yi waa euh, BIP brigade d'intervention polyvalente euh, tonton Coly bi nga xam ni tonton Coly bokkul ak du mbokk Adji ñoom ñoo ko indi comme ni ñu indee Viviane aussi Viviane tuddul Viviane am naa turam am naa santam léppam dinaa leen koo wax incha allah mooy coiffeuse bi euh, te tamit bu ñu maanaam indiwaay benn toggat toggkatu euh, Adji Sarr koy toggal Adji Sarr mi ngi tudd Ernest Ernestine Ernestine jàpp leen tur boobu Ernestine waaw Ernestine donc moom mooy bon bi nga xam ne moom mooy toggal Adji Sarr équipe boobu nag ñu indi leen. Bougane gaidani premier jour bi Adji Sarr fanaan Bougane Gueye le lendemain le Bougane gaidani Dany présente présenté wu Adji le jour de l'arrivée de Adji Bougane nekk gardien ou bilan appartement. Euh, le lendemain le vraiment Bougane gaidani Dany appartement présente présenté wu ni ko waaw euh, man le Bougane Gueye Dany Adji Sarr waa xamee naa la affaire Bougane waxtaan fa dem yoonam dara amul ñu discuter bla bla waxtaan mu dem ñu tegaat ci deux jours muy quatre jours quatre jours buggaan ñëwaat bu buggaan ñëwee nag buggaan ñëw ci appartement bi dugg chambre Adji Sarr ñu discussion mu toog ci wet gi bla bla buggaan jege teg loxo xëcc raay bés saint yi départ outil ubbi ndar paañ ba dóor dóor dóor bàyyil ko cinq cent mille francs aji saar mi ngi naan daan lojo nee na buggaan niw lay xeeñ niw mi ngi ci audio bi nag bu buggaan teggee rek ma dóor audio bi bu buggaan weddee rek ma bombardé audio bi buggaan gay dani audio baa ngi fii déglu leen lu aji saar di wax aji saar nee na maam seen nee na ko ci audio bi buggaan de niw lay xeeñ xam ngeen niw moom mooy nekk ci soow niw lay xeeñ ak diisaayam ba tëdd sama dënn bi ak doole gu bari bi mënuma sax nokki di ñaq muy ñaq tooy xepp ba ma étouffé lii mi ngi ci audio bi Adji Sarr mooy wax ci audio bi di ko wax xaritam bi nga xam ne foofu lay defee ay confidence am foo kooku rek la mun a waxal ay secret mi ngi nee na ko nee na maam aji nee na maam bugande niw lay xeeñ ak diisaayam ba tëdd sama dënn bi ak doole gu bari bi mënuma sax nokki di étouffé wu mi ngi ñàkk tooy xepp sama kaw donc Bougane tëddee na Adji Sarr nii la tëddee Adji Sarr moom Bougane Gueye Dany donc ba mu mooy quatrième jour bi ba mu tëddee Adji may ko cinq cent mille dem na yoonam affaire ba nag indi coow ndax Viviane bandi la Viviane jàng gis ni Adji Sarr mii day jour bi nga xam ne Bougane ñëwaat na fi tëddee na ko mu yéegal affaire bi Dior Diagne ne ko Bougane day tëddee na aji Sarr jor Diagne ne ah mu ne ko waaw mu ne nañ fexee nañ ko fa jëlee nañ woo Mamour jor Diagne woo Mamour Mamour Diallo ne ko nañ fexe jëlee aji Sarr ca këru Bougane ga ndax Viviane de nee na tëddee na aji Sarr démb Mamour ne ok kon amul problème léegi nañ maa ngi xaaral ma wut benn appartement bu ma ko yóbbu loolu mooy quatrième jour donc Adji Sarr six jour la def appartement Bougane Gueye Dany six jours la def appartement Bougane Gueye Adji Sarr nag ba mu fa defee six jours Mamour Diallo fekk wutal na ko ngor maanaam ca virage beneen appartement ñi ñëw ak oto jël leen ñoom ñëpp tibbaat équipe boobu noonu yóbbu leen ngor virage ñu tuxal yóbbu aji Sarr ngor virage mu installé wu di jëlaat téléphone am waxtaan ak maam ojo baa ngi fi donc installé wu taf taf lépp nice baax toog mu ne ko. foo nekk nii mu ne ko ah fu ma nekk nii de jànq xaw ma ko de mais xam naa ne daal soriwul ay almadi yooyu mais janq dama dama wéet bugg naa nag nga seet si ma nag mu ne ko ah nan laa lay seet see xamoo sax fa nga ne xamoo fa nga ne bugg ma seet si la mu na mu ne ko waa amul problème mais xam naa ni dinaa ko lijjanti parce que jamono jii comme maa ngi doog a ñëw fii dañ ma ne ma toog xaar bu ma recevoir kenn parce que nak aji euh, aji daf ne mam daf ne mam sen xam nga kan moma ma ci won mam ne ko waxal mu ne ko bugan mam ne ko da ngay dul mu ne ko barki bay ñess bugan ngay dani mo fi ñew may na ma xaalis bu bari mam ne ko xam nga def nga ko sa yëfu ciaga yoy xam na def nga ko sa yëfu ciaga yoy ñu xaqataay <laughs> ñom ñaar ñep xaqataay ba xalangu ndaysan aj saar ak euh, xaritam boobu di maam seen ñu xaxataay mu ne ko xam naa def nga maam seen na ko xam naa def ko ko sëyëfu caga yooyu ñu xaxataay mu ne ko waaye de maa ngi koy rëccu maam ni ko maam ne ko lu tax nga rëccu ko mu ne ko waaw niw da lay xeeñ niw ak dooleem gu bari boobu teg sama teg teg ko sama dënn bi maa ngi dama doon étouffé wu mu ne ko léegi foo nekk mu ne ko fii de xam naa ni xam naa ko Muneko fide ko fii de mangi ma ni dal maa ngi booru côté almadi waaw xawma nak exactement fan la lolou audio la audio la len di netali donc jele nagn ko mom Bougane gay dani nee na lay xegn Adji sar moko wax niiw lay xegn ak dolem gu bari wogu wéeru ci sama dënd bi ma étouffé wu ma nokki ba pare ñak toy xep sama kaw Adji sar moo wax moo confier xaritam bobu di mam seen donc léegi Adji sar jóge na fa dem na Ngor sar yegg si ci jàmm jëlaat téléphone am ne ko waa maa maam maa ngi nekk nii fii fi ma nekk moom maa ngi fi eh, ak Ernestine laa bonne mu ngi nii toog tey moom ceebu ceebu joolaa lañ bëgg a añee ay soos lakk def ci lakk jën bëgg yooyu genre yooyu quoi lañ tey moom yooyu laa commandé ceebu ceebu joolaa Ernestine mooy toog ceebu joolaa moom laa commandé am ay ay bëgg ak ak ak ak ak eh, lakk jën am genre lu ngeen koy woowee mooy kii kii ron yi tuuti yi bulet bulet yi ndaw yi am bulet yi ndaw yi ak soos bëgg am ñoom ñaar ñu waxtaan la loolu la seen waxtaan yooyu yooyu ngi fii intéressé wu ñu toogaat ba ah, yow maam yeewu nga waaw waaw mu ne ko waaye yeewu naa mu ne ko yow woo naa la ba sonn jotuma la mu ne ko démb damaa guddee woon dama demoon euh, am fu ma demoon aji na ko <laughs> xanaa ci safar yi nga nekkoon mu ne ko déedéet non dama demoon kër ñoom kii te patati patata waaw beneen audio waaw yow gos ci loo ci loo nekk mu ne ko waaw ah, maa ngi fi lépp jàmm yow naa la mu ne ko meetar de ñëwoon na fi mu ne ko meetar ban mu ne ko maître El Hadj mu ne ko El Hadj mu ne ko waa ñëw na fi yow ñu nga mënee fen mu ne ko <laughs> ah non na fi de mais wéet naa nag war nga maa seet si nag mu ne ko ah man kay waxoon naa la ko boo bëggee ma ñëw fa mais yow xamoo foo nekk ah comme comme que danga ma dang ma ni bu ma recevoir bu bu comme dañ ma ne bu ma recevoir aji ne ko comme dañ ma ne bu ma kenn ma noonu rek di xaar Ernestine ak Viviane ñoo may wéttali Ernestine Viviane tonton Coly mu ne ko ban tonton maam ne ko ban tonton mu ne ko tonton Coly tonton Coly mu ne ko waaw mu ne ko ah d'accord kooku rek xaw ma ko aji ne ko man mii sax xaw ma ko dañ koo booleeg man mu ne ko ah aji est que fi nga nekk wóor na mu ne ko <laughs> maa ngi nii ak ñetti policier yu may garde ñaar ci suuf benn ci kaw dañuy aayalante ñu waxtaan xam nga dugg ci benn mariage seen benn xarit bu tudd xariba mu ne ko waaye yow euh, mariage yu xariba de laay waajal mariage yu xariba seen benn xarit mu ne ko ah mariage bi de aji saar ne ko ah mariage bi de bëggoon naa fa dem defar ba mu baax nag Mam ne ko mam ni ko muñal rek legi mu jeex mu ne ko ah li kay yakamti nako, ko aji sa rek li kay yakamti naa ko yàkkamti mu jeex torop wam yow yow wa yow jank yow yan ban tiisi nga jënd mu ne ko wuu bu xamni sama dal yi nak ñi waxtaan seen waxtaanu jigen après ñu top, mom mam sen dem ci mariage yu seen xarit bobu tuddu khadiba ba mu ñëwé nak mom benen audio bima encore

mu ne ko xam nga kan moo fi ñëw seet ma maam ne ko kan ni nga mënee duul tey aji bàyyil fenn mu ne ko tonton Diallo mu ne ko ban tonton Diallo mu ne ko tonton Diallo 94 milliards maam ne ko wuu tekki nga tekki nga laay lay la la aji tekki nga waatal waatal maam ne ko moom de moo ma barke Bañes mu ne ko doo ko jéem maam nak oh bayil nonu aji sar rek oh bayil nonu bayil nonu rek bayil nonu <laughs> bayil nonu donc après waxtan ci dugat fofu ci rapport bu mu def ak Bougane geydani ñu nettali ko bu ko netal wa rapport sexuel bi ak Bougane may nako 500000 ak xeeñaayam ba gos ma ngi lay wo fan yëpp mënuma laa jot mu ne ko dama japon tonton Diallo moma ma seet si Mamour Diallo mu ne ko kon de xanaa làng ngeen moom maam seen moo ne ko xanaa làng ngéen aji saar ne ko ah nee na daf ma nopp di <laughs> moom xam nga rek daf ma mës a bëgg depuis bu yàgg bu may jël si noonu ci ca kii ba ca euh, nu mu tuddati ca salon ba salon de massage ba foofu nag mooy première fois bu ko Mamour Diallo tëddee première fois bu ko Mamour Diallo tëddee mu ne ko mu koy nettali nu ko Mamour Diallo laalee mu ne ko Mamour Diallo ñëw na raay ko summi ko foowee sein mi foowee dë sein mi mu ne mu foo ci sama ñaari ween yi téye ko di ko moxoñe commencé tàng ci la ma summi dóor na ma fa tëddee ma mu dóor ma dóoraat mais dóor yi nag dafa ànd ak perte blanche légère légère perte blanche Dori, manam Mamour Diallo te de ko fa tëddee de ko fa ci bi teud bi teud nako fa deux fois ci kaw teud bi ci kaw teud manam tëddee ak moom foofu mu quelque trace de perte blanche légui nak la perte blanche bi commencé di jóg ba commencez commencé perte blanche bi di wax Viviane remarqué l'eau Viviane n'a len wax touram vrai touram et tout Viviane mi ngi tudd Ndeye Fatou Dioum Viviane coiffeuse boobu nday faatu Dioum la tudd di sëru Mbacke Dioum Mbacke Dioum bu ngeen di dégg Sénégal il il n'a absolument rien à nag sëram mooy nday faatu jum ki ngeen di dégg Viviane coiffeuse boobu noonu lesbienne bi am na jëkkër nag mais lesbienne la di faru di gelu Georgia euh, ñoom ñaar ñëpp ay lesbienne lañ nday faatu Dioum la tudd Ndeye faatu Dioum moom moom salon boobu noonu ngeen di gis salon quoi coiffure boobu fiir bi bi nga xam moo jàkkaarloog euh, kër sëriñ bi Ndey Faatu Jum la tudd di rak di sëru Mbàkke Jum kooku mooy lesbienne bi di di xaritu euh, Joor Jaañ ca jamonoy booy Joor Jaañ donc moom Mamour Diallo fa la njëkk tëddee Adji Sarr ca appartement bam ko abal lii lépp ay audio la nag weddi rek kenn ci ñoom buy weddi rek ma bombardé audio je le défie ku ci weddi ma dóor audio ku ne prip prip laa na wax prip ku ne prip ma dóor wallahi billahi ku ne prip ma dóor kenn mënu leen défendre je ñoom laay accuser direct audio yaa ngi fi fees tepp ku ne prip ma largué kenn ku ne prip ma largué wallahi billahi mi ngi fi Adji Sarr Mame Sène direct audio oh, yëpp a ngi nii waxtaan step mi ngi fii fees tep tep tep après damay déglu sax eggali leen parce que dafa bëri donc Viviane gis remarqué loolu Viviane nag moo placé moom mooy centré Adji Sarr ci Mamour Diallo te di ngeen xam histoire boobu lan moo fin bi ngeen Vivian Viviane naan ma fay lampe bi parce que Viviane moom mooy proxénète bi mooy PIMP bi moom mooy placé Adji Sarr ci Mamour Diallo Mamour Diallo di ko tëddee moom Viviane moom moo koy placé moom mooy togg xelu euh, Adji Sarr bi di ko ko jox di di di togg ba mu ñor jox ko Mamour Diallo sur le plat mu dóor Viviane moo liggéey loolu lépp dinaa di ngeen ñëw dinaa leen gën a donc Viviane ànd ak Viviane Ndeye Fatou Dioum ànd ak Adji Sarr ak deux éléments bip benn bi des kër ga ñu dem foofu noonu gynéco bi Adji Sarr mi ngi naan Adji Sarr bu mu lu ma leen di wax nag ci ojo Adji Sarr bi laa ko xamee mu ñibbi si jëlaat téléphone di ko nettali maam seen ne ko yii waa ji de gynéco bi lay wax loxom bi loxom bi nu ma ko sama taat yi ak baaraamam yi dijj boo gisee baaraamam yi nu mu dijjee dugal loxom yi si sama taat yi ba mu jeex tàkk kooku nag maanaam gynéco bi euh, ñag la ñag ak ñag la du sénégalais ñag la aji saar mooy wax xaritam mu mu ne ko baaraamam yi nu mu dijjee ab ñag la baaraam yi nu mu dijjee sama taat yëpp la ko dugal ba mu jeex tuuti ma yuuxu boo gisee baaraamam yi ñu reetaan euh, maam seen reetaan xaqataay ci ojo bi mu ne ko waaye nag dinaa la ñaanal nga ñëw fi ba léegi maam seen ñëwagul seet si aji saar ngor mu ne ko waaye nag euh, jànq dinaa la ñaanal nga ñëw fi waaye gis nga kooku baaraam yi nu ñag boobu baaraam yi nu mu tijjee gynéco bi loxom bi yëpp la dugal si sama baaram yëpp la dugal ci sama taat yi laa ilaha illallah tuuti ma dee mu ne ko maam xaaral ma waxanteeg Viviane Ndeye Fatou Dioum la coiffeuse ma ñaan ko ba xam dina mën a nangu nga ñëw fi dem wax ak Viviane Viviane ne waa amul problème comme sa xarit la fexeel mu ñëw fi parce que baab na Viviane quoi mu mu mu jóoraat beneen message bi Viviane mu ne ko maam bu subaa nga ñëw fi jëlal taxi ba ci station bi dina am ku ñëw jël si la maam nag ñëw jël taxi ba ci station bi gars yi dem génn dem jëli ko benn élément bip dem jëli ko ci station bi maam ñëw pour la première fois ñu def seen yenn bu neex waay yendu boo xam ne togg togg buy taroje moroje bégee langue teg seen musique di fecc togg seen togg yu baax Viviane ma nga fa woon Ernestine la bonne ma nga fa woon Adji Maam Seen ña tonton ñoom tonton Coly mi ngi ne la moom deful dara donc euh, yéen a ngi déglu mu ne ko maam bu subaa nga ñëw fi maam jël taxi wàcc station bi ñëw jël si ko ñu def seen togg def seen yendu gu torojo moroje maam ñibbiwaat ñu toogaat di waxtaanaat maam ne ko yii sa foofu moom neex na di mu ne ko maam man lu ma commandé mu ñëw macaam macaam de tous les jours dina ñëw indil ma ay pizza ak ay jus wax na daal fële la ko jëndee xaw ma ban lan restaurant daal chez Kacha chez Kachara la koy jëndee pizza man Mathiam moom chaque jour bu ñëwee damay moom moo may indi ay pizza lu ma commandé maam lu ma bëgg commandé Mathiam indil ma ko da ku baax a ngi noonu ku baax dafa baax ndeysaan xol bi moo rafet nee na Mathiam xol bi dafa rafet ku baax la ci ojo rek laay wax audio waa maam yow doo dem ci laay portable xaw ma kuy laay portable nag maa nga ci ojo yi maam doo dem ci laay portable nga jëndal ma fa deux portables envoyé ma ko village sama ñoom papa. ñaataa des ci sama xaalis bi xaalis boobu nag mu ko naan ñaataa des ci sama xaalis bi mooy xaalis bi mu ko màccaam joxoon ba mu jox ko madame Tall jël ci 700000 yónnee ko seen famille lu muy après di ko jëlaat ci madame Tall may tuuti madame Tall jël la loolu jox ko maam seen waxoon naa leen loolu. donc xaalis boobu mi ngi ci maam seen ba léegi mu ne ko maam doo dem ci laay portable nga jëndal ma fa deux portable envoyé ma xam naa laay portable mooy jaaykatu portable nekk ci rond point liberté 6. nga jëndal ma fa deux portables envoyé ma ko village teg ko ci horaire bi ñaataa ci des maam ne ko temps mun envoyé ma temps nga yónneel ma ko samay samay papa yooyu nag mi ngi fi mi ngi ci ojo bi mais temps rek laa leen di wax mu ne ko temps envoyé ma temps donc nga yónneel ma ci jëlal ci xaalis boobu des fa nga envoyé ma temps jëlalaay ma ci deux portables teg ko ci horaire bi mu dem sañ sañu village waaw Mathiam moom chaque ngoon dina fi jaar ñoom Pape Samba Diop. même ça Pape Pape Samba Diop ku mam, la yow mam par Samba Diop lu mam kooku man man dama ko bëgg mom daf may conseiller di ma yedd di ma xamal di ma waxal xam nga wa daf fay jaar correct wa mu ne ko kay ma may la ko aji saar ko kay ma may la ko mam ne ko bàyyi loolu bàyyi <laughs> ñu mu ko bi set mun solo oh mam yow ki mo la ko may rek nga defaru mam ne nga bay lor fo solo yow <laughs> ñu fo donc mooy euh, beneen audio la foofu nag ci la Farba ñëw Farba Ngom ñëw fekk leen fa gaare otom ànd ak benn sëriñ pël benn sëriñ benn marabu Farba Ngom ñëw fekk fa Ernestine Viviane tonton Coly Adji Sarr mu ñëw nuyoo na ngeen def sa waa waa gaa yëpp jóg xam nga moom euh, Farba ñëw nuyoo waxtaan ànd ak benn pël bu yor benn saak mu dugg ci biir néeg bi ñu tëju euh, Farba Ngom sëriñu pël bi ak aji saar mu présenté sëriñu pël bi ne ko kii ab sang la comme coow li daa xaw a bëri jamono jii damaa bëggoon mu ñëw ñaanal la xam nga ndax coow li bëri na lool et tout ça expliqué sëriñ bi nag toog ne waaw génn ci saagam bi ubbi ci saagam bi génne ab fas fas waa ne aji lii takk ko sa tànk bi lii fas génne fas ne ko takk ko sa tànk bi génne ay bind ne ko yii da koy xooj nga sangoo ko sept jour parce que Adji Sarr fu mu toog day toog fit bi day tëf day day tëf tëfi fit bi day rëcc Adji Sarr day toog mel ni dafa am ku ko ku ko cuq loolu da koy dal quoi day rek affaire bi fit bi day day tëf tëfi bi day rëcc donc sëriñ bi nga xam ne Farba Ngom moo ko indi mu jox ko euh, fas bi ne ko takk ko sa tànk jox ko kii bi ne lii nag da koy sangoo juróom-ñaari fan dinañ fi ñëwaat Farba Ngom noonu la nuyoo dem bàyyiwu fa dara nag bàyyiwu fa xaalis premier jour yi maam jëlaat téléphone euh, aji saar jëlaat téléphone am pum maam seen waa maam way waaye maam yow euh, ki fi ñëwoon léegi euh, Farba Ngom xam nga ko maam ne ko non kuy kooku mooy ah kooku de biir bu rëy boo xam ne ma ngay man ñi yow ñiy wér nañ yow ak seen biir yu ngand moom ak maître maître maître El Hadj Diouf lak lay wax ñu ngi mel ni ñu ñu biir ay seex ñi comme ñu biir ay seex de biir yu rëy lay lay la laa maam <laughs> ñu ñu déconné maam ñu reetaan tooñante xam nga waaw donc euh, Adji Sarr ne ko man de fas bi duma ko takk te duma duma sangoo lii duma takk duma takk fas bi duma sangoo lii waaw duma ci def dara nag bàyyi leen foofu jël sànnee ne ñu toogaat ay quelques jours semaine moom ba ngoom ñëwaat àndaat ak sëriñ boobu far nag maleureusement bu mu ñëwee gis ni Adji Sarr takkul fas bi mu tegaat Adji Sarr ne ko waa yow fas bi gisuma ko sa tànk di Adji Sarr fen ko ne ko eh, dama doon sangoo fas bi après ndox mi ki di ci toq mu commencé xeeñ ci laa ko tekki teg na le sangu nu may sangu comme sang saafara yo may sangoo te sango wul ah saafara yi may sango ak gi moy moy xéñal fas bi mu commencé am ben odeur ci la ko dindi tegee ko né mu nek ah d'accord d'accord wa d'accord waaw mais mais bul wax dara amul problème légui fexé ko nga nga takkat en attendant euh, ñu joxat la yenen ciangat nga nga nga sangu wa inshallah ma ngi lay waajal dina la euh, euh, euh du ci lañ deuk deuk dëkkam bi xaaral xaaral ma ñew parce que bugguma rata dara dama bugg lépp leer bugguma rate dara may leen ma trente secondes parce que dëkk aañam aañam la ko wax aañam mu ne ko dinaa la yóbbu aañam euh, foofu moom boo fa toogee kenn du la fa fekk appartement bu rëy sama jarbaat yaa nga fa sama sama sama sama jarbaat yi di nga mën a waxtaan ak ñoom nekk ak ñoom rëcc leen waaw comme ça coow li jeex affaire yooyu dama lay waajal daal yóbbu aañam aañam ba ko na nga ko préparé nag aji na ko waaw amul benn problème donc euh, may leen ma tuuti waaw léegi léegi audio audio yi laay kii nii parce dafa bëri waaw mu ñaan ko Viviane waaw mu waat ko ne ko waaw maam boo jëlee taxi ba fii nga ci station bi dinañ la jël si wax ma ban heure ngay ñëw ma wax ko ci la maam seen ñëw seet si ko hmm. waaw loolu wax naa ko hmm. okay. parce que euh, comme ni ma leen di wax léegi nag film bi yëpp laa leen bëgg a tegal bëgguma bëgguma euh, euh, sauter di coq à l'âne waaw waaw waaw waaw ma maam moom dafa mën a ree dafa bëgg ree ci la Farba ñëwaatee comme Adji Sarr nee ko liñ ma jox pour ma sangoo ko juróom-ñaari fan du ko def loolu la wax maam seen aju sar sangowu ko téere tànk bi mu ko jox it takk ko bu far ba ñëwee ne ko ana téere bi ñu la joxoon mun ne ko dama doon sangu tekki ko parce que day tooy day xeeñ parce que dafa commencé woon mel ni luy nëb di ko nettali maam nag ne ko li mu ko joxoon yëpp li ma joxoon yëpp dama ko teg à côté waaw wóoruma seen gàllaaj waaw maam ne ko waaw yëkkati xaalis waxtaan ak moom foofu nag la Farba Ngom yëkkatee xaalis may ko deuxième bi bu mu ñëwee di ko di xool ba xam takk na téere beeg yooyu sangu na ci la ko Farba Ngom yëkkati xaalis may ko ne ko nag ah, xam naa dinaa waajal ñëwaat fii jël la yóbbu la aañam yóbbu la ci benn appartement foofu am naa fay appartement baax yi rafet nga nekk ak sama jarbaat yeeg yooyu gën nekk farba may ko xaliss genn dem and ak paabo pa serigne peul bi hmm. ne ko bu damay tukki mais buma ñewé ñu and dem ci añam waaw kenn xamul la kër ga rëy na fuuta kenn xamul la kër ga rëy na di fa mëna nekk ak sama jarbaat yeeg sama doom yeeg sama ñooñu nga tok sa appartement yow kenn kenn du la fa fekk añam añam la ko bëggoon yobbu mu ne ko waa d'accord Merci, tonton. Mm. bi Farba deux jours nak ci le Mamour Diallo ñëwaat tonton Diallo Mamour Diallo ñëwaat bobu fekk na laal na ko ba paré waaw donc ba mu ko Mamour Diallo tëddee dem na diggante boobu yóbbu nañ ci Adji Sarr ci euh, gynéco bi parce que commencé na di gën a tooy ñu yóbbu ko ci gynéco bi bu ñu ko yóbbee ci gynéco bi mu ñëwaat toog commencé am na gélule yu muy dugal ci bagaasam moom Adji Sarr dañ ko joxoon ay antibiotique ak gélule yoo xam ne day dañ koy da dugal ci sexam mu seey ci sexam donc Mamour Diallo bu moom far Farba Ngom ñëwee deux jours après bu mu demee bu mu ñëwee ba dem deux jours après Mamour Diallo wàcc si waat tonton la ñëw ànd ak Viviane ñoom ñëpp ñu nekk fa di waxtaan kenn manqué wul Mathiam nekk fa maanaam Viviane moo fa newoon la bonne Ernestine y avait aussi euh, tonton Coly benn garde euh, bib bi ñaari ñoo nekk ci suuf ci oto bi loolu nag ngor la. Mamour ñëw toog mu ne ko waa maam foofu la ko ne waa maam mu ne ko ah mu ne ko xaw naa dee aji ne ko xaw naa dee mu ne ko yow loolu lay rey aji aji saar del wax jàmm yow dof nga rek del wax jàmm lu lay rey mu ne ko tonton jàlloo mu ne tonton Diallo lan la mu ne ko tonton Diallo tonton Diallo di ci ginaaw lama def tay mune ko loy wax ni mune ko barke ci ginaaw da lama sama taat yépp a ngi metti munuma toog munuma taxaw mune ko lutax mu tëddee la ci ginaaw mune ah dama ko ne mune ko docteur bi gynéco bi limay jël ni diko duggal ci sama sexe daf ne mo buma def ben rapport antibiotique yek ak dindi microbe yek yoyu mu ne ne docteur bi nee na bu ma def benn rapport sexuel nee na mu ne ko garaawul Mamour jàlloo ne ko garaawul commencé di ko làmbaatu encore di ko làmbaatu laal sein yi dugal loxoom ci bagaas yi mu xaw a tooy mu génne mu fekk fa coton mu génne di commencé futti ko audio bi laay déglu rek di leen wax mu dugal ma moom Mamour Diallo génne bagage mi di jéem a dugal bu mu dugalee ci taatu aji saar ginnaaw duggul mu xaw a dëgër mu jël ci poche bi comme ni ma solee grand bu mu jël ci poche bi dugal ci poche loxom ci poche bi génne maanaam euh, benn bouteille mooy gel deux pièces de sobe mooy gel euh, hydroalcoolique mooy gel bu bu ratax bi gel bu ratax bu ñuy raxasee loxo ci affaire corona bi moom Mamour Diallo dugal ci loxoom comme deux pièces la soloon dugal ci loxoom génne gel boobu hydroalcoolique bi nga xam dafa ratax tooyal ko loxoom tooyal bagaasam génne bagaasam tooyal ko ba mu tooy xepp mu sëggalaat aji saar di ko ko roof tëddee ko ginnaaw léegi nag euh, gel bi mi ngi nekkoon ci poos bu nekk ci booru lal bi parce que am na nii la nekkee ci lal bi bii côté bii nga xam ni génn na lal bi boobu gel bi newuloon gel bi mi ngi woon ci poos bu nekk ci lal bi maanaam boo tëddee nii poos bu nekk ci biir lal bi boobu foofu la gel bi nekk foofu la dugal loxoom tëddal na aji Sarr fa la dugal loxoom génne gel bi génne ay bagaasam tooyal ko ba mu tooy ak gel hydroalcoolique bi nga xam ne dafa tooy commencé nag jë jàppee ko ginnaaw dugal mu ne ko maam maam ne ko nga ne la mu ne ko boo déggee yuuxu bu ma yuuxu mu ne bu may maam ne ko ku newoon ci kër gi mu ne ko Viviane moo nekkoon ci kër gi yuuxu boobu ñëpp a ko dégg yuuxu bu ma yuuxu nee na ko bu mu ko njëkkee bu mu koy dugal yuuxu bu ma yuuxu sama taat yi ñëpp yëg nañ ko mais Viviane wax naa leen ni mooy placé aji Sarr ci euh, sur le plat di ko jox Mamour Diallo muy dóor moom Viviane mooy liggéey lépp moo koy liggéey mooy togg xelu Adji Sarr mu ne ñëpp ko dégg yuuxu bu ma yuuxu ñëpp ko dégg mu ne noonu la def ba daanu ci sama biir bi mu ne ko noonu la def. sama taat yi tëddee sama taat yi ba sama taat tàng jër ma yuuxu noonu la def ba daanu ci sama kaw biir bi mu ne ko lan mu ne ko sama taat yi munuma toog munuma taxaw mooy nettali nag moom Adji Sarr mooy nettali maanaam maam seen bi nga xam ne foofu rek la mun a wu foofu kese audio original yoo xam ne kenn munu ko yor moo nekk nii kenn ku weddi ci ñoom rek audio te audio di ngeen ci jot nag weddi moom ñimewuñ ko kenn ci ñoom ñimewu ko ku weddi dee kenn ci ñoom ñimewu mais audio yi moom di ngeen ko jot dinaa leen ko jox kooku ne vous inquiétez pas dal leen rek dal leen avant guu loolu jour bu Mamour Diallo tëddee Adji Sarr ci taat jour boobu bu mu demee tëddee ba daanu foofu noonu bu mu demee ci la Adji Sarr ak taatam yuy metti ak taatam yu rocceeku ci la euh, woowee xaritam boobu noonu nga xam ni parce que foofu amul gel amul lubrifiant moment boobu noonu ñëw na fa Mamour guddi la ñëw gaare otoom ñëw yéeg affaire bandi du fa ñëw suba parce que ñëpp xam nañ Mamour Diallo donc amul gel mu jël ci gel hydroalcoolique bu mu doon raxasee ay loxoom parce que foo moment boobu noonu Adji Sarr wax na ko ni ci kanam damay dugal ay ay gélule muy seey ci samay bagage donc munoo ma laal côté bii tey munul ne ci la ko commencé di palpe na ko garaawul di ko palpe ba sëggal ko génne loolu tooyal bagage bi rokkos ko ci taatu aji saar yi ba ba ba muy daanu ci kaw euh, biiram bi moom Mamour Diallo borom 94 milliards waaw ñoom ñaar ñu waxtaan ci détail et tout donc muy ñaata aji euh, Mamour Diallo mooy deuxième fois bu mu laalee aji saar deuxième bi nag dafa fekk euh, moom mu gisoon mu amoon ay perte blanche ñu yóbbu ko ci gynéco bi et tout et affaire bi di tooy et tout donc loolu yéen ngi suivre. Lol motax mu lalé ko ci taat jili ñum doon def ci vagin bi garab yi ko ko bi joxon mu ko def ci vagin bi ak antibiotique yi mi nan daf ne ko dama nek ci traitement buma ma ko bi jox te kon waruma am rapport sexuel ci la nekk di ko làmbaatu di bës sen yi di mar sen yi jàpp weenam yi mu ci la ko tëboo jàpp sen yi kii génn affaire mi solu protection lu dara Mamour Diallo dóor ci taat yi mu metti Adji Sarr yuuxu mu génnewaat ko ci la jël affaire ba tooyal bagaasam yi dóor ko ko Adji Sarr yuuxu ba mu daanu ci kaw kawam ci poosu Sabadoor ba la ko génnee dégg ñu ñu avancé audio bi parce que mi ngi wax ak nii mi ngi wax ak maam seen nii xaaral ñu dem donc ñu demaat benn instant leeral ci leeral TV parce que fi euh, euh, audio bi ci leeral TV la donc benn instant El Hadj Diouf moment boobu noonu El Hadj Diouf ñëwul woon kër euh, Ngor ñëwul woon Ngor donc El Hadj bañ ko bu mu waree ñu war a def interview leeral ak aji saar ci la El Hadj ci lañ joxeel adresse Ngor El Hadj Diouf jóge këram dem jëli ji Adji Sarr euh, Ngor virage mu dem jëli ji Adji Sarr yóbbu ko fekk boobu moom préparé na lépp léegi nag déglu leen waxtaanu aji Sarr ak maam seen mu ne ko maam yow man de maa ngi nii ñu indi ma kër maître ak ay journalistes yoo xam xaw ma leen sax ñii may gis ni xaw ma ci kenn mu am ne ko eh, tey nga dee boobu yéen gisagu leen nag gars yi andi feere lañ leen jox affaire bi gars yi bu ñu ko defee ak bu ñu leen koy tagal toog na lu yàgg dañ doon hésité toog nañ lu yàgg balaa ñu leen koo jox mais Mame Sène moom xamoon na interview bi yëpp moom yëgoon na ko El Hadj Diouf moom Mame Sène yëgoon na ko El Hadj Diouf monté lépp Viviane yëgoon na ko léegi nag interview bi ngeen seetaan audio yaa ngi nii xaaral ñu dem. Viviane. tonton Koli, donc Viviane elle a Diouf venir jël si Viviane tonton Koli, gardez nekiti souf, ci gardez garde top topp nous ñu dem Viviane Dougou, elle euh, euh, Ernestine Bonbi bi à euh, tonton y

nee na mu toog mu ne ko jànq man daal dama toog trois heures de temps ñi may briefing bi di ma wax lan laa war a wax ñu may wax lan laa war a wax jànq maa ngi tiit xawma sax lan laa war a wax ñu naan waxee lii dindi lii waxee lee defeel nii nee na lépp ñu ñu wax ma ko lépp nee na moom moo koy wax xaritam bi confession sincère moo koy wax ni ko kër maître El Hadji bu ñu jàkkaarloog journaliste yooyu ñu gololoo foofu jàppale wax ji yëpp Adji Sarr nee na amul lan lu ci raconté tout a été raconté au tout a été briefé briefing euh, euh, briefé par euh, Viviane Manam nous Fatou maître Ella Juf dicté préparé après c'est affaire nous pizza fromage ma indil ma ma ah, Bacham Mathiam na woy man lu ma commandé affaire jigéen quoi man lu ma commandé euh, dama koy am dañ koy indi Viviane est toujours là tonton Collé toujours là waaw donc léegi moom Adji Sarr bu mu toogee ñu dugalal ko ay casque trois heures de temps lañ fa toog ñu briefing ko ñu wax ko lu mu war a wax affaire yooyu Adji nee na mu toog lépp dañ ko ko wax loo A ba Z dañ ko ko wax loo ñu dóor euh, casque yi mu jaar ci ginnaawam ci ginnaawam la jaar ñu am benn genre euh, kii boo xam ni moom mooy mooy translate moom mooy maanaam moom mooy eggali waxu Viviane bi Viviane moo nekkoon ci ginnaaw di waxal Adji Sarr Adji Sarr li muy wax noonu da koy déglu Viviane lañ dañoo branché ci ginnaawam nee na dañoo branché ci ginnaawam ak ab fil mu dem ci ginnaaw léegi Viviane moo nekk ci ginnaaw di wax Adji Sarr li muy war a wax moo tax Adji Sarr bi muy wax noonu di taxaw di wax di taxaw Viviane benn émetteur émetteur bi moo nekk ci ginnaaw casque. ci ginnaaw ñu jaarale fil bi émetteur bi continuer ko fil bi continuer Viviane yor micro di wax Adji Sarr di dégg di leen wax muy wax ak journaliste yi mais Viviane moo doon wax lépp lu Adji saar wax Viviane moo ko wax audio yaa ngi fi weddi dee parce que audio yi foog ñu monter ko monter ko monter ko monter ko parce que film yi donc

donc mu dem fa jël ko bu paré interview bi tamit ñu jëlat leen dello leen ngoro seen kër googu euh, virage ci la ci la nak mom El Hadj Diouf di ñëw pour tenter violam ñu dem ñu tok benn jour mom deux jours après euh interview leeral bi moy lëndëmal ñi lënd askan wi bi ci la. maître El Hadj comme xam na adresse bi léegi ñëw ne salaamaaleykum ñu ne ko maaleykum salaam mu fekk fa gaay mu waxtaan dugg ci biir ne day seet client aji saar Sarr commencé waxtaan jege aji saar Adji Sarr commencé bu ko bu xaw ma mel ni ku koy bëgg a lekk mu ne ko maître maître toogal mu ne ko bul ma ne maître nee ma tonton nee ma tonton mu ne ko bul ma ne maître nee ma tonton. Adji Sarr non non maître toogal waaye maître bàyyi li nga def maître bàyyi li moom maître El summeeku desee benn silib yu weex yooyu du sol du sol du sol caleçon silib yu weex yooyu mbabal yooyu noonu mbabal 45 yooyu di am benn poos ci kanam mbabal mooy silib yu weex yooyu di am poos ci kanam nii poos ci kanam mag yi dañ koy sol xam nañ ko silib yu weex yi silib yu weex yi di am poos ci kanam mu summeeku Adji moom El Hadji Diouf futtee ko ba set wecc devant devant Adji Sarr dese silib yu weex mbabal 45 yi am ben poste poste ci kanam ni donc mom moy wax Adji Sarr wax ci audio bi néna maître mel ni dof un deux rek musumé ko ba déssé mbabal bobu boobu mum bu weex bobu am poste ci kanam bi di ma bés may daw naa maître maître maanaam bu ma maître néma tonton bu len faté nak Adji Sarr maître mo jël ci Adji Sarr ci kër googu noonu yóbbu ko ci interview ba donc xam na foofu moom tam mu ñëw di tenter chance am boobu fekk na Bougane ñam na benn Mamour Diallo ñam na ñaar benn ci kanam ak benn ci ginnaaw moom nag Maître El Hadji Diouf tam di jéem ñu dem ci Maître El Hadji Diouf léegi nag ba mu ko déposé la El Hadji Diouf xam kër ga diggante ñaari fan ya nag ñëw na fa seet aji saar gis na ko indaaleel ko ay cadeau indi ko dox na ci loolu avant mu ko tante ñëw na fa benn yoon ñëw na fa ñaari yoon indaaleel ko ay cadeau naan ko bii sama doom bee la ko jox bii sama jabar moo ko jox bii kii moo la ko jox bii kaa ay fan yu tooy mi ngi ci audio bi indil ko ay cadeau di ko ko may boobu mu ngi jéem a togg bopp bi waaw donc les trois tentatives de viol mi ngi fii moom lay nettali maam seen waaw di ko nettali mam sen ak ak mbabal 45 am bob silib bu weex bi am poos bi ci kanam mi ngi ni silib bu weex am poos ci kanam waaw yooyu la El di sol ak silib mu ne ko mu ne maam lu mu ci gëna metti ak silibam bu wex bu gal ak silibam bu wex bu gal lo xam luy gal nak silibam bu wex bu gal mu ne ak silibam bu wex bu gal bu demee ba weex ba mel ni lu salte silibam bu weex bu gàll loolu daal la wax ne ko maam ak silibam bu weex bu gàll muy tëb sama kaw di mel ni gaynde man damaa tiit man damaa ñëw ñu toog noonu di waxtaan toog ci néeg man di waxtaan ma jékki-jékki rek mu summi tubéy ji ma ne waaw maître looy def nii bul ma ne maître nee ma tonton bu ma ne maître nee ma tonton mu jégué ci ma ma met met déedéet déedéet met met met déedéet mu xam nga ne man dama la mës bëgg xam nga ne man dama la mës bëgg dama la ko mënoon wax ci biir nit yi wa dama la ko mënoon wax ci biir nit yi xam nga dama la mës bëgg xalé bi bañ na déedéet maître essayé essayé essayé ba sonu dem donc premier tentative de viol bu maître jéem def aji sar aji sar bañ mu ci la ko jégué si commencé bu ko bés aji sar bañ na dee donc après ci la maître taille euh, xam na première tentative mu dem mu dem ngor la amé leen ngor ngor la amé ce appartement lan motax aji sar daw di ko xam leen suivre leen film bi bu baax bu leen dara bu leen raté dara lan motax aji sar daw nek ah, néegu aji saar fa fa la amee hmm. maître dem après commencé jël je ah, maître téléphone lay gën a wax ak aji sar ke di gis maître commencé jël téléphone encore ne dina wat, commencé di dox ci mayon aji komase waaw ah, commencé waxtaan di ko jéem encore léegi nak aji saar dugaat feneen ñuy waxtaan ane diw ane diw ane diw moom xaritam kii moom bàyyi naa ko maam seen ko kii bàyyi naa ko ana sa far bii ñuy waxtaan waxu far lii moom ñoom la aji maam seen aji saar ñooy waxtaan seen affaire far ah, ane diw mu naa ko non diw moom bàyyi naa ko diw dama xulóog moom diw moom nekkatuñu waaw seen affaire ñàkk fer yëf jigéen ñaari jigéen ci la sama nijaay yegg si nag jibril waar jibril waar ñëw na cëy <laughs> ci conversation bi ngay dégg nee na ma sama nijaay ñëw jibril waar lu tax nag ma ne leen jibril waar mu naan ko sama nijaay jibril waar moo njëkk jibril waar moo njëkk siq ak aji saar mais du ay du sexuel jibril waar mooy député ba ñu jàpp mu muy tungoom aji saar mu teg aji saar ci kawam ñu bett ko boo leen déggee loolu xam naa dégg ngeen ko xamu leen kan la ñëpp di werante kooku mooy jibril waar moom salon ba c'est salon de massage ba xam nga waxon na len jour bu Ousmane Sonko ñëwé fofu fekk fa euh, fekk fa Jibril War di massé wu chauffeuram am di ko xaar bobu Ousmane Sonko massé wul ci la génné dem donc mom Jibril Waar dafa euh, objet sexuel la jappé Adji Sarr Jibril Jibril War War n'ak ab député la bo xamni bandi la mo tëj lu Cheikh Omar Diagne ab Jibril War bandi la bo xamni mo saboter auto Babacar Touré pour mu accidenté Fatou yalla moko ko ci musal. Djibril Waar boobu nag moom moo doon ñëw moom lañ bett ca salon de massage mu teg Adji Sarr ci kawam moom nag du tëddee Adji Sarr mais dinaa leen wax Adji Sarr mi ngi expliqué moom nan lay defante ak Adji Sarr ñu déglu mu ne ko ay monsieur le député moo fi ñëw de ñu monsieur le député mu ne ay waay aji aji waay aji yow boo tey nga génnee fii suba nga génnee faa mu ne ko ñëw na de waaye de moom moom lu mu bëgg dafa yomb cinq minutes rek moom sonnul du sonnalewul so du ma sonnal te vraiment dëggantaan du ma sonnal moom bu ñëwee nga defal ko lu mu bëgg rek ça mu daanu mu ne ko loo koy defal loo ko tàmm di defal mu ne ko lu ma tàmm di defal rek mu ne moom cusam yi rek laa koy màccal di ko ko màttal nee na ma màttal ko ko nee na Jibril Waar daf naa ma day koy mar sama cus yi day koy mar di ko màtt Jibril Waar seen député ne Adji Sarr comme nee na lu daf ne ko lu ma ko tàmmal di defal parce que man seen def ne ko loo ko tàmbali defal mu ne ko moom ay mbiram sonnul damay ñëw toog ci kawam di ko jàpp ay cusam yi di ko ko màttal di ko ko mar di màtt di mar di matt buggul mu mar kese dama dama ko war a màttaale ay màtt yi sew nee na bu boo ko defee loolu rek mu daanu mom duma ma sonnal ba bari day yëkkati xaalis mayma ci semi rek lay mar di ko màttaale ndaw ndawan <laughs> rek ki ki ko mam sen di retan ak reetaanam yi neexi mam sen ay bandi <laughs> wa neena Jibril war ñëw na fa xam ma yëg ci kawam bandanu, ci semi mar ko mat mu daanu ben daanu après jog mayma dem nak dama koy matal dama koy macal cuusi di toog ci kawam di ko bombal kooyam yi moo ko wax du samay wax Adji ne ko dama koy maccal cusam yi di ko mattaale téye sama loxo bi di bombaale kooyam yi ba mu daanu ba mu tooy xepp ci sama loxo bi après ma jóg dem raxas sama loxo moom mu génn kooku mooy Jibril Waar kon Jibril Waar jaar na fa ñu maccal ko cusam yi mattal ko cusam yi boxamal ko kooyam bi mu daanu fa ba mu tooy xepp ci loxo Adji bi ci la jógee solaat ak ay yërëm génn ci la Adji Sarr dem raxas loxoom mi ngi ci ojo bi bu jibiri faar waar ne piip day bandi bandulu du nee moom moo tëj Cheikh Omar Diagne naan ay man maa leen di def comme jigéen jibril tey ma def la boo nee priip mu dóor ko jibril génnal da ngay bandi man nga fiy fekk da nga ne Cheikh Omar mais maay sa baay man maay sa baay boo nee priip ma ko doy wax ja jeex audio yaa ngi nii jibril te bii mooy deuxième fois jàpp nañ la ca salon ba Adji Sarr nekk sa kaw gars yi xamuñu lan la te nii ngay def ak moom bii mooy deuxième bi boo nee prrr ojo bi génn tey tey tey tey huit heures zéro minute mu génn tey balaa gaa yi di tëddi wala wala une bi du matin wala minuit ma dóor aca jibril ayca ayca na gaaw ba gaa aca leen rang leen rang leen jibril génnal da koy boxamal kooy bi maccal ko màttal ko mu daanu mu tooy xepp ci loxo aji saar bi mi ngi nii audio yaa ngi nii nee na day ñëw rek nga toog ci kawam mu ngi koy wax maam naan ko maam moom de day ñëw rek nga toog ci kawam téye sa benn loxo bi di ko ko géel jàpp sa di ko ko maccal di màtt rek mu daanu màtt mais màtt bu sew ay màtt bu sew waxuma màtt mu ne ko mbaa gaañoo ko mu ne ko waaw mbaa gaañoo mu ne noo gaañu ma ko moom du ma sonal moom du ma sonal moom du ma sonal waaw. acca ñu départ. le retour de maître pour une deuxième fois ah gars yi laaj baa ngi jeex nañ ñëwaat nañ ñëwaat ayca nañ ñëwaat ayca ayca ayca un million de personnes tey lépp leer bu ku ne prix rek audio bombardé léegi léegi wan love